alxuraan tuddee na Balla Gaye doon mooy géej am na ndox saaga nañ la ndax jëmm ji xas nañ la ndax jëmm ji dégg nga lu nekk ndax jëmm ji waaye am nga lu nekk yow li dal Serigne Cissé bu Serigne Babacar Sy dañ dalaa dal xam nga mooy lan bu ñu nee Serigne Cissé ne Serigne Babacar bu ñu ni Géejawaay nit yàgg na géejawaay juddoo géejawaay yaroo géejawaay màggee géejawaay kenn mës nga dégg ñu ne mooy borom géejawaay suñu nee liiru rek ñu ne monument géejawaay liiru jaan gënoo fee rafet liiru jaan gënoo fi waaye dañ fi gën jikko ak man nag li tax ma ñëw Balla Gaye ñu bari kenn ku ci nekk am na lu ma indi waaye man li ma indi damaa ñëw fay si boru liiru jaan liiru jaan bu sama soxna day anniversaire sax mu ñëw. liiru jaan bu sama. dama ne dafa am nu may wax man géwél laa ci ndey ak ci baay waaye du ma tàllal ku yàlla lox bind loxo waaye ku ma jox ma jël waaye ku ma jox ma jox ko seen saay. yaa ngi dégg sama jabar bu dee anniversaire sax mu bàyyi lépp ñëw kon damaa ñëw pour fay si na bor. Mansour. da nga am défaut il faut nga rectifier sa défaut koy wax ci biir mbooloo. père ba mooy suma baay di fi def ay teraanga di fi wax ay teraanga ba mooy nuyu naa la mon frère maa ngi bu wér a wér a a yow li dal liiru daan dalaa dal da ngaa nekk ndax géej waaye dégg lu nekk takki bi liw koñ bi ma dëkk nga ne ba léegi koñu baabooy la ñuy wax te sa kër la fa sappe bàyyi tam maa ngi ñëw billaahi fi ma fi ma nekk dinaa ko def te kenn wax Mansour c'est pas normal Mansour léeg-léeg nga bett nit defal ko loo xamante ni nii di nga faj aajoom faj aajo ay mbokkam ay ku ci nekk ba noppi ne ko wax kenn eh defal rek waaye fa ñu koy waxee ko fekkee def dinañ ko wax. barki démb dañu ko tuddee làmb Balla Gaye ma jékki di sama téléphone sonné làmb ji mu doon dëkk bàyyi laa mu yónnee ma xaalis bu bari ma fay ci fay ci courant jënd ci essence joxe ci dépense merci beaucoup. waaye nag ku laal Balla Gaye laal ma man dama ne ku laal Balla Gaye daf may laal gars yi dañ naan Balla Gaye Lamine Samba moom la faral non dañ ko yàq ma Balla Gaye ñoo bokk ndey baay Balla Gaye dafa gàddaay ne dootuma ñëwati làmb damay gàddaay ma dajeeg moom ci sama oto. boobu daaw dañoo xuloo man ak moom duñu tuddante ndax Sa Thiès lañ daan ma wax ca mu mitti ko ndax Balla Gaye boo ko bëggee laal rek laalal rakk yi wala mag yi koo ci laal laal ko ñu tongoo man ak moom deux ans biir géejawaay ma sama oto otoom korosente ma ne ko Balla mu ne ma naa ma ne ko yaay làmb Balla amuloo droit génn làmb mu ne ma nooy ma ne ko kaay ma invité la nga a ci biir làmb keroog ba ma la invité nga ñàkk noonu ba tey waaye nag Balla lii nga yàlla defal liñ lay def nga koy faje am na lu la yàlla defal liñ lay def nga koy faje waaye doon taalibe Serigne Touba ne sëriñ Touba laa yaakaar te foo toll di nekk ci sa jàmm ju ma sëkk xoolaat sa bopp ndax sëriñ Touba li mu am amu ko ci jàmm jekku ay noonam baal leen huwa nabi huwa rasul huwa alxalil wa huwa alhabib wa limaamu wadali moo wax yonent bi loo xam ne kenn dootu ko ko wax illaa yow bi waaye nag man liiru dama am loo xam ne man ak Makan Mbeng ñoo ko def dama woo liiru léegi ne ko ëppal nag baax ndax bu ñu tuddee Balla Gaye doom ñu ne Lamine Samba maasale na ak Makan Mbeng jaggi valise bi ça sonne mal à dama toog léegi ne man jëlisee maa ngi ñëw ci yow nee naa la lu liiru def yow la neex lu liiru balaa muy wax ak kenn yow lay wax balaa muy defal kenn yow lay waxal man maa ngi la tuddee borom ci waaye man man man ci bii boor man ci yee boor man ci bii boor man ci yële boor man xam naa ci dal dama lay yee 6 heures du matin nga faj aajo yi te bëgguloo ko ko wax yàlla maa suma yem waaye dinaa la ko defal ne kenn ko wax Abdoulaye fan la ne amul fenn makal ne ma boo fexee ba man ak yow ñu ne dañuy jënd valise Balla Gaye waa kër Balla Gaye dinañ dal kaw ndax leer na la ni bu ngoonee képp ko am Balla Gaye di nga ñëw fii te dinañ indi valise ma ne ko makkan li ñuy def mu ne ma kañ koy sot ma ne ko luñ koy sotee mu ne ma dañuy yëkkati këyitu kër man ak makkan mbeng ñoo ko jox ci tur bi nga dem tabaxee fu la neex ah! waneel fu la neex defee fu la neex bakkan kaay nga dem tabaxee fu la neex defee fu la neex defalee ko fu la neex ndax man ak makkan dafa am lu ñu lu ñu lu ñu nasoon waaye nag na leer defuñu ko def liiru jaan dañu ko defal Balla Gaye 2 ndax Balla Gaye bi xam na de man xam naa ne dañuy lijjanti leneen lu dul làmb mi ngi nii toog dañuy jaar feneen fu dul làmb mu ngi nii toog maag bakkan ñoo def lii ci yow sant gërëm la waaye nag attention kaay ma wax la de barke alxuraan karim billahi fekk nga ku mën a kànje ku mën a maase nga la faral bu kànje ni Balla Gaye allahumma salli ala sayyidina Muhammad Lamine jërëjëf da ngay jox Balla Gaye 2 kàddu gi borom tërëndoo bi